tey dañuy ñëwoon fii ci Saint-Joseph doon def patronal patronage wu Saint-Joseph ñi ni xam na Saint-Joseph mooy patron wu liggéeykat tey di premier mai lan lañ mën a retenir ci Saint-Joseph dafa ko nit ñi mën ko jàpp moo doon kan nañu ànd gërëm yàlla ma njëkk leen nuyu yéen ci liggéey bu takku bi ngeen di liggéey fii ci biir Medina Dak Médina TV di leen di yéenal bésum jàmm ñu ngi nii tey xëj na ñëpp a ngi ci seen kër ak seeni jaboot te ci jamono koor lañ nekk bàyyi ngeen seen lépp gu ñu ci waxtu wi maa ngi leen di gërëm voilà bés bi di bésu liggéeykat yi bés bi nga xam ne itam la ñu jagleel Yosef mu sell mi ci yéen ci diine l'islam Youssouf wala ka nga xam ne ci ngorom ci li nga xam ne moom ci boppam jëf na ko ci liggéey te jàngal ko ka ko yàlla dénk maanaam Yeesu Krista wala ci moom lañuy roy te tey jii mu doon itam bés bu nga xam ne dinañ ci jëlee barke ndege ñun itam ci suñu ñaq ci képp ki nga xam ne di nga liggéey daan sa doole ndax indil tuuti sa jaboot bës bi le Yosef mu sell mi taxaw la te raamul la fa yàlla liggéey mu nekk mën na naat ci bës bi le itam xale yu bëri daañu fi ñëw di fi sakku ñaan di ko ñaan Yosef mu sell mi yàlla na yàlla def xale yi nga xam ne sonn nañu lool ci réew mi sonn nañu xej na fii ci Medina. ci ñaan ak taxawaay yooyu Seex mu sell mi yàlla ubbi leen buntu liggéey buñu ñu daane seen doole ba mën a suqali tuuti seen njaboot coono bi leen dal xëj na xaw a wàññeeku yàlla na ko yàlla def ci taxawaay yooyu Seex mu ñu gis ne dangeen ko patronné koo xam ne parrainé koo xam ne naan naam doomu dëkk bi la waaye ci diine musulman la nekk mu nekk quelque chose boo xam ne symbiose la bu extraordinaire d'où vous est venue cette idée là. Yalla rek ay jëf xam-xamu yalla té mbaaxu yalla dañuy jitu ci lépp yéene bi rek la won ci xol léegi monsieur Cheikh Tidiane Ba ba may teew ci paroisse fi man fi la ko xamé doomu Medina ndege man fenen laa yaroo feneen laa cosaanoo donte sax Abass ndaw gii laa judd waaye moo dox tànkam ñëw nuyu si ma fii te balaa ma fii teew ñëw na fi joppi yoon te jëf na li nga xam ne fii parwaas bi rafetlu nañ ko defe naa ci loolu itam lañ ko bëgg a delloo njukkal sargal ko ñu ne ko ren ji nga parrainer suñu xewtewu parwaas te yàlla def bés bii la itam ñu ngi nii di jeexal koor gi daañu dugg ci xewte bu mag ci diine islam korité fii ci Sénégal kon defe naa loolu maye yàlla rek la te ñu ko ciy sant te man daal maa ngi jàng lu bëre ci sama nekk fii Medina gox gi ma neex la te tànk yu rafet yi nga xam ne dañ koy dox te diine may ñu ñu gën a xaritoo gën a bëggante

est-ce que jarul ko gën a joxe ak exemple xale yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk léegi pour ñu roy ko. Yosef Musalla mi li ma laal ci moom li nga wax mooy noonu la bu ñu xoolee lu mu doon liggéey du woon liggéeyu bureau du woon liggéey yi nga xam ne dina ko indil xaalis bu bare ndege ku daan dooleem defe naa du xaalis bu bare ngay jiital bu dul sa soxna. say doom say mbokk lu ndaw dina la doy voilà defe naa lu bare lañu mën a jàng ci moom ñàmbaaram xolu suufeelu ba mu àndal takku ci liggéey liggéey bu simple liggéey bu oyof mu doon ci liggéeyu menuisier ci moom jaamu yàlla ba mu tax mu yar ci kañu ko dënk Yeesu Krista defe naa nikki tey ci moom war nañu jàng lu bare bare bare ku nekk liggéey bu ngay mënti jàpp te ci moom nga yëngu nga jàpp ko bu baax ñaari loxo gërëm yàlla naan lii ma am dinaa ko liggéey ba fa doole yem ndegee am nañu koy wër te amuñu ko voilà kon na boobulee fonk liggéey sax surtout ci ndaw yi lu ndaw li ñu am ni buntu bu ñu ko xeeb xëj na ci loolu la yàlla di a ah, jaar ubbil la buntu bu gën a yaatu te dina gën a neex su boobaa voilà lu ndaw loolu gërëm ci yàlla te jaamu ko ci boobu le liggéey te yàlla dina la ubbil bër buntu yoo nga xam ne yaakaaroo ko fooge yoo yàlla na ko yàlla def te ñu mën koo roy ci Yosef mu sell sànq maa ngi doon tudd ay kaddu suñu benn mag Youssou Ndour nee nañu Medina ku fa yaroo voilà defe naa loolu laa ràññee ci Medina te mu neex ma waa Medina yéen a ngi sama xol ñama xam ak ñama xamagul yëpp yàlla na Medina wéy di doon bërëb bu xale di doon xale yu yaru bërëb bu mbaax bërëb ba nga xam ne dina dinañu may teraanga surtout mag ñi ak ñu néew doole. yàlla na ko yàlla def ci Medina képp ku fi teew nga seen ko nga gis ko mu jaaxle mu sonn nga may ko loxo astut yàlla na ko yàlla def ba Medina doon bërëb bi nga xam ne malaaka yi dañuy mel ni mën ak yow ku gis sa morom yërëm ko ku mën a oyofal dara mu def ko ngir yàlla na ko yàlla def nañu yokkal cofeel ci xol te Medina doon bërëb bu neex a dëkk bu ma amoon lu ndaw sax waaye bu ma ko séddoo sama dëkkandoo voilà loolu defe naa dina gën a neex yàlla te dina doon màggal tuuram itam yàlla na ko yàlla def yàlla na Médina doon bërëb bu am yërmande ci moromam man loolu mooy sama ñaan